jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci hôtel bi nga xamante ne mooy White House mbokk yi ñu indi ci ki nga xamante ni ñu dalal kenn koo xamante ni macha allah lépp lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole xale la jeune la mais bi mu duggee ci làmb daanaka mën nañ ne yàgg na waaye bi mu solee cleur bi nga xamante ne mooy couleur promoteur yàggut waaye yàgg na di dund làmb ndax ki nga xamante ni da nga commencé ci fans club commencé ci ki nga xamante ni mooy écrit di topp mbër dem ba bokk ci fans club dem ba bokk ci groupe yi nga xamante ni mooy groupe baax dem ba bi bokk fi nga xamante ni tey yor li nga xamante ni mooy diplôme entraîneur yor diplôme yor euh, li nga xamante ni mooy nekk ki nga xamante ni tamit ensuite dafa doon yu am carte membre amateur tey mu yor licence bi nga xamante ni mooy licence promoteur doon xale am jom bokk ci réew mi muy jamaïcain jamaïcain maa ngi lay nuyu Djiby Kébé maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa caméraman ak équipe bi nga ànd ak yëpp muy équipe Wassare TV nga xam Wassare làmb nga xam ne da ngeen ñëw ci làmb di ci bàyyi seen waar bi ngeen ñëwee yàggul waaye li ngeen def ci làmb lu doy waar équipe bi yaatu na ñii ñu ngi États-Unis ñii ngi senegal fu nekk ci monde bi daal Wassare làmb mu ngi fa di nuyu nag fii ñu nekk. comme ni nga koy waxee sax mënoo ko ndax déggoo anglais <laughs> White House Residence mm. muy hôtel bi nga xam ne wax dëgg képp ku fi ñëw rek di nga xam ne yàgg ngaa dem ci hôtel waaye hôtel bu mel dugg ci jafe na mm. di nuyu moom di sama jigéen sama xarit di sama magu bopp di sama wëllëre maa ngi koy ziar bu baax muy Xadijatu Sow doomu Sénégal bi maa ngi bu baax a baax a baax mm. lu waral ki nga xamante ne mooy Baye Mandione xoyantaan liiru jaan ak wulli nga indi ko fii ci Gambie Euh, Baye Mandione ak Xoyantaan Lirou Diane ak Wouly lu waral ma indi leen fii ci Gambie boo ne Baye Mandione Xoyantaan rek jërëtu ñuy laajte question bi Xoyantaan mu ngi fii mooy roi des arènes Gambie takk fi ngembu kenn mosu ko fi daan bëree feeg mbër yëpp ci dëkk bi kenn daanu ko dégg gul muñal Baye Mandione nekk champion def Sénégal lu nekk ñu gis na ñun ay doomu Sénégambien lañ comme ni ñu koy xam man sama yaay d'origine Gambien la sama pap mooy sénégalais doomu Sénégambien ñaari dëkk yëpp laa dëkk ñaari réew yëpp dama fee am cër cër bi ma am senegal laa am Gambie kon bu yàlla dafa doxee dafee ñu dugg ci làmb nekk ci làmb di ci bay sunu waar ñu gis ne Gambie tamit làmb yaatu na waaye moom rek la bokk ak Sénégal bëree dóor Gambie ak Sénégal rek ko bokk ñoo ko validé gum xaj na Gambie bi fi bëree dóor commencé yàggul sax waaye validé nañ ko comme ni ko senegal di defee ñu gis nañu ñu nekk ci affaire boobu noonu di ci yëngu. yàlla dogal ñaari réew yëpp validé ko ñu bokk ci ñaari réew yëpp pourquoi pas pour ñu boole leen ñu def événementiel. Hmm. démarche combat Baye Mandione Xoyantaan métti na. Euh, Baye Mandione Xoyantaan démarché ko métti woon na départ bi méttiwul ndax biñ koy démarché dafa fekkoon Xoyantaan nekkoon ci contrat. Hmm. contrat bi jeexagul ñu ne nañ wax baay Baye Mandione ba pare. Hmm. ñu am Baye Mandione feere ko téye ko ndax xoyantaan bu contrat am jeexee bis bu defee dernier kii am ñu dem wax ak moom yaakaar naa dem nañ wax sax ba ci biir leneen dugg ci waaye loolu ak làmb ñoo ànd. leneen lu mooy làmb dafa bëri ay yàqkat. Mm-hmm. làmb dafa bëri ñoo xam ne nii da ngay jóg di góorgóorlu. Mm-hmm. ne lii laa bëgg def ñu taxaw tëgg seen tànk ne du fi amee. Mm-hmm. duñ ko fi defee. loolu moom ci làmb lañ ko fekk. moo tax làmb ji taxawal ko xaw na jafe hmm. waaye tamit li may wax rek ñaari mbëri xam nga tamit nit ak lu mu métti métti nit même bu ngeen demee ba si bisa ngeen am kii lu mu métti wax nu mu hmm. ñaari mbëri ku nekk gor nga bàyyi ma ñoon bi ma waxee moom li ma wax mooy wax nga jox naa la sama kàddu ba pare bis buy dañ du dañee ci man hmm. dem nañ ba ci biir sax affaire yi métti waaye jox naa la sama kàddu ba pare luñ métti métti métti man maay dem ba yow yaay dem ba ne ma mënatuma waaye affaire yi doo dégg ne yàqoo na ci man xam nga loolu tamit yëfu gor la léegi nag yow yàqkat yi mooy tax yow tamit da ngaan kuy yàq lépp lu mu ko jaral ba mu ne lii du am na la ko jaral pour mu am mooy waral yow nga fippu ba def ci loo xam ne après da xam ne lii métti na. métti mm-hmm. parce que làmb moom ku ci dugg ne métti waaye lépp loo xamante ne lu ci waral tamit nga indi wulli mbëru Sénégal Lirou Diane mbëru Sénégal ñu nekk ay mbëru askan yoo xamante ni ku ci nekk Sénégal dañ leen a bëgg nga jël ko mbaa boobu indi ko fii ci Gambie. waaw li may nga yàlla moo yor lépp wulli bi may jëflanteeg moom gaa yëpp dañ ko fi wanoon ginnaaw toog na ñaata kenn dégg ko ci làmb ma ñëw tëgal ko combat mook parisien yóbbu ko ndar mu gore tamit nangoo jógee fii dem di bëri ji ndar bi ma ko yóbbu ndar bi muy dem moom kenn rek àndoon prix bi ma ko fay nee nañ ma wuli ci boppam li ko fay nii mun nga ci fay diis mu bër ndar te comme ndar la foofu mun la fa indil dara waaye dama xool ne man moom dañ yàgg am relation quoi ñu noon déggante nii musul hmm. ñëw sama kër musuma ñëw këram si rajo rek lañ xamante hmm. ndax dafa dama woote woon benn émission fekk ñu invité woon ma amoon combat mu ne ma xaw boo ma ñaanalee ma daan yàlla na la yàlla xaw ma defal lan ñaanal ma moom tamit daal teg ci ay conditions si ñaan googu pour ma ñaanal ko mu daan ma ñaanal ko ne ko yàlla na la yàlla may ndam hmm. si loolu lañ commencé kii Jamaïcain da ngaa baax affaire yooyu ñuy déggante bi ma nekkee promoteur may tëgg sama première journée ma xalaat ko ci ne dama ko ciy dugal pour mu bëre ci. Hmm. combat boobu moog Big Pato la bi ma ko doxee ba pare Big Pato du bëree ji ndar yaa ngi dégg. Hmm. ma ne wulli comme yow joxoon nga ma sa kàddu ba jox naa la avance ba pare léegi damal xool koo bëgg a bëre. Hmm. nga indil ma ma tëgg ko. moo dem tànn parisien indil ma moo ma jox sa numéro mbër mi de. Mm. ne ma woo ko bëgg na pour bëreeg man d'accord na ma woo parisien mu nekk baat ak tontu benn jour bi lañ taxawal combat bi. Mm. ñu dem bëre ji yàlla def mu ñàkk. Mm. bi mu ñàkkee tamit bëre ji naa ko ndar mu daanu. may defaat sama événement Sénégal Dakar. moog Big Pato ma taxawalaat ko. bi ma taxawal làmb ji kenn kiiwu ko. làmb ji amul coow amoon na sax ay xëccoo ñu naan làmb wuli léegi Big Pato daa jar lool ñaari mbëri jaruñu lool ma liggéey ci ndax man làmb yàgg naa ci. ñu liggéey ci liggéey boo xam ne lambu jooju noonu Sénégal gi yëpp waxuma la Sénégal waaye àdduna ñoo ko doon bàyyi xel bu Ligue bi Pato dem na ba lamb yu fa nekkoon yëpp coowatuñ leen ñoom ñaar comme ñooy roi des arènes. Mm-hmm. gis nga keroog lambu ji ni mu mel. lambu ju neex. stade bi képp ku fa nekkoon keroog kontaan nga. Mm-hmm. te boo doon tànn daaw combat yi am. Mm-hmm. boo jël ne moom mooy meilleur combat day nekk deuxième. kon loolu lu am solo la bi mu si jugee nag demee ba lambu ji am coow laa xam ne gars yi moom mun nañu xool fu nekkul fu nekkul dara soxlawuñ fa waaye commencé am dara rek ñu commencé ñëw di ko kii. Hmm. si la profito bi muy waaj taxaw ma woo Lirou Diane fekk tournoi laa bëggoon avant tout. Hmm. tournoi Ligue des champions laa xalaatoon. Hmm. tournoi boobu dañoo dem ba ci digg bi gisatuñu mu am. gisatuñu mu am mooy Adama Diouf ci boppam. laa jubuwul ak moom ci kase. waaw ndax dañ wax moom Lirou Diane bi patawul. mu laaj ma kase yoo xam ne ah, ay cinq millions six millions ci Adama Diouf mënu ma ko. Hmm. dama ko fay. Hmm. ma ne ko yow bëggoo ci bëre. ba ñu jot a kiyante sax tooñante maa ngi moom léeg-léeg sax mu sànni ma xeer ne promoteur bi amul xaalis moo tax tournoi bi amul. Hmm. maa ngi sant yàlla yoruma dara daal waaye maa ngi góorgóor. liiru jaan ko jëlee. liiru jaan bi tournoi bi amulee laa ne ko yow xaaral rek. bi pato wulli ku daan ngeen bëree. bi ma demee ba combat bi jage si. ma xam coow li boo yàggee si làmb da ngay xam làmb ma ne wulli mi. moog liiru jaan bàyyil ma def ci benn affaire. mook Big Pato si laa dem diggante li daan jox ko Boulisson le TV moom la sol keroog làmb ji ma indi ko mu présenté wu ma ne ko ñaar ñi tey ku daan nga bëreeg moom moom liiru jaan ci boppam moo ne ma du ma bëreeg Big Pato hmm. waaye wulli bu daanee damay bëreeg moom ma ne ko ñëwal bu wulli daanee yéen ñaar ngeen bëre mu ñëw ci làmb ji wulli daan rek liiru jaan dawee wàccee ci kaw turbine bi daw yooxu ne jeex na ñu bëri sax si lañ ko gis wàcc yooxu ne jeex na dama koy rey daw xëppoo suusi si biir suuru combat bi moog wuli signature bi commencé wuli na ko du ma toog ak yow plateau du ma wax ak yow ñu ne combat wuli bi Lirou Diane taxaw na waaye làmb jooju sax pour mun nekk régal coono bu ne daj naa ko ci. Hmm. ñëpp a jóg après comme li ma doon wax rek gars yi fu nekkul dara soo waaye fu commencé am dara ñu ñëw di ko xëccoo ak yow ba yàlla def ma taxaw ma ko taxawalee coow li commencé bëri bàyyi ma ñoon xoyantaan war a bëri ci Gambie. Hmm. ay doomu Gambie yi nekk ci diaspora bi bëgg leen ndax Gambie yi dañoo bëri ci diaspora bi bëgg làmb hmm. di seetaan YouTube làmb rek la ñuy seetaan bëgg ko xam nga ñu ci bëri ñoom Baraka ñoom Adja gas suñu maman bu mu ngi Angleterre hmm. xam nga ñoom email bëgg làmbu ñoom Abdou Dramé depuis États-Unis hmm. ne ma suñu sañoon nag Wouly ak Lirou Diane dinañ bëree ji Gambie ma wax ñaari mbëri may leen léegi pourquoi pas aller retour home and away comme ni koy anglais di waxee. Hmm. dem ak ñëw comme ni koy defee seen rek bëri ji leen Gambie bëree Sénégal bu ngeen bëree ku daan bu ñëwee Sénégal mu leeree fi. moom tamit ñu nangul ma ko loolu moo tax tey jii si signature Xoyantaan ak Baye Mandione ma indi ci Wouly ak Lirou Diane. kon Wouly ak liiru Diane dinañ bëre aller retour. kon di ko may waa Sénégal may ko waa Gambie. waa Gambie loolu laa wax ak ñoom ne dangeen da ngeen di bëree Gambie bëree Sénégal ndax yéen ñaar jar ngeen ko bu jaroon soo ñu def tournée wër tournée ci monde bi réew mu nekk ngeen bëree fa jaral ngeen ko askan bi ndax yéen ñaar yéen a mel noonu nit ñoo xar seen xol dugal leen ci. bu ngeen ko amee sant leen yàlla. léegi ñu taxaw seetlu làmb ji nga xamante ni tëgg nga ko muy Baye ma ak Khoyantane làmb ji danga koy def en direct doon. waaw làmb Baye Mandione ak xoyantaan làmb joo xam ne la wax dëgg du ma la nëbbu. làmb ji li ci dugg dafa bëri dafa metti waaw tey ñu ñuy jàppale sax dañ dem dem ba am kers taxawu na ñu si taxaw bu nekk. ku ci mel ni père baak njabootam taxaw na ci sonn ci. da koy nuyu bu baax a baax a baax. di wax ne ñu ngi ci négocier di wax ak ay partenaires. kiiwaguñu bu ci kanamee fii ak dix jours dinañ xam lamb ji lan lañ ci bëgg a def waaye fu toll nii plan biñ ci jëlagum mooy lamb ji dañ ko bëgg a def pay per view ndax lamb joo xam ne la mu war a am si diggante Sénégal ak Gambie événement bu toll nii. Gambien yi nekk ci àll bi bëgg ko seetaan sénégalais yi nekk waa Sénégal bëgg ko seetaan bëgguñu mu mu rëcc leen te ñëpp bu mënuñu jugee Sénégal ñëw Gambie te direct. engagé télévision mu jugee Sénégal indi ko Gambie muy def direct métti na. Mm-hmm. moyens yooyu noonu coono la ñu bëgg a wax ne dinañ xool moyen boo xam ne ñëpp dinañ ko ci mën a seetaan mm-hmm. du métti si ñoom du métti si ñun tey bu ko defee pay per view code bi ñu yombal ko. Mm-hmm. képp kuy sénégalais nga mun ko seetaan képp ku nekk si bi nga mun ko seetaan. ñoom ñu gagné si ñun ñu gagné si boobaa ñun liñ ciy am dinañ ci mën a jël engagement jox ci télé yi waaye nii nii nii mënuñu engagé télévision déplacé ko jëlee ko Sénégal ba Gambie. Mm. ndax buñ la mayoon gratuit sax nga indi leen rek seen dalal leen fii xam nga ne kenn du la ko wax. Mm. seen lekk seen naan fi ñuy tëdd rek xaalis la. Mm. kon loolu moo tax làmb ji sax ñu ngi ci waxtaan waxtaan boo xam ne pour def ko pay per view képp kuy Gambien boo sañoon bu bàyyi ma njoon di bëri ak xoyantaan fii biir Gambie di nga ko seetaan. code bi nag dinañ ko yombal ba fu waay nekk di ci mën a jot ci loolu lañ nekk tànk yooyu. combat bi li nga ci diggante bi diiran bi mu taxawee ak ñaata la ci million. instant yi ma mun ni ñu gis nii mel ni def nga ci millions yu bari. non xaalis bu bari dugg na samay nit dugal nañ ko ci samay xarit dugal nañ ko ci fii nii rek bi ñu fi ñëwee ba léegi rek li fi génn ñaata la dëkkuwaay bi suur na nuyu ñaata la fii hôtel bi kon xaalis bu bari moo ci dugg ci combat bi waxuma rek bëri waaye déplacement yi rek. ñu ñi ngay déranger rek coono yi ñu si daj rek xaalis la jugee Gambie ñëw ba Sénégal ngeen taal seen oto ñëw fii essence bi ngeen lakk yoon bi loolu rek xaalis la mm. kon làmb ji bi mu taxawee ba tege xaalis rek xaalis bu bëri mu ngi ciy génn mm. waaw te bëgg nañ mu nekk jour boo xam ne bu jour làmb joo xam ne bu jour dina am beneen koom-koom mm. bu mu dugal ci Gambie euh, société yi nekk Gambie dinañ ci bénéficié wu axalu Gambien yi dinañ ci bénéficié wu moo tax tamit ñu profité ci occasion bi képp ku yor sponsor société sponsor am loo bëgg a jaay indi ko ci làmb ji gis nañ ay société yu nekk Sénégal ñu ngi commencé bëgg am base Gambie nañ ñëw seen loxo ci làmb ji xam ne mu mënuñ fee am événement bu gën a rëy bii bu xewee biir Gambie boo jëlee roi des arènes bi boole ko ma joon làmb ji dem ba entre Sénégal bi la Gambien yi damay dégg seen wax Baye Mandione warul ñëw fii daan suñu champion ma mm. Mandione ne bu surba drapeau Sénégal lay indi xoyantaan mm. ne ko boo indee drapeau Sénégal di nga ma fekk ci bag bi ma téye drapeau Gambie mm. kon nekk na loo xam ne lu doy waar la Djily Fall kon ba tey mbokk yi dégg li nga xamante ne moom la Jamaïcain wax kon partenaire yi nga xamante ne ñu ngi Sénégal ni ñëw jàppale ko ndax jeune la xale la te puis xale bu nekkee ci réew bokk ci li nga xamante ne day doxal réew mi dafa dafa jot ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ñu jàppale ko rawatina Gambie gi nga xamante ni fii la ñu nekk nga déplacé événement Sénégal indi ko ba Gambie jot na tamit partenaires yi nga xamante ni ñu ngi Gambie ñu jàppale mais démb gis nañ Ba Mandione ak Khoyantane ku ci nekk sol blouson dafa mel ni am nga partenaire bu la topp sa ginnaaw. waaw partenaire la ko du partenaire si man sama papa njool hmm. Ndiol Dieng borom BMG. Hmm. maa ngi koy ziar di nuyu ñoom Matar Sène ndax ni tamit. da ngay wax dëgg te yàlla tax suñu xamante nu mu jógee. Hmm. Gàmbi la toog gis may tëgg làmb. Hmm. toog si tele mu gis may def en tant ndaw moom muy doomu Gàmbi de laa la wax de. Hmm. ma ñëw mu yëg ne maa ngi fi mu wóolu ma. billahi wallahi ma ñëw ku ñuy wax buur promotion maa ngi koy nuyu baax promoteur la fii. ñoo àndoon jour boobu ñu dem ci moom. ma dugg na tël rek ñëw ci bureau bi rek mu nuyu mu jóg wax ma lox dama lay siifur dama lay seetaan da am jom. comprendre nga dama yow dama lay jàppale. nga dama lay jàppale dina ànd ak yow ci combat yi ngay tëgg Sénégal dinaa la si jàppale. Hmm. ma ne ko pourquoi sax pourtant sax dox naa benn combat fii bàyyi ma njoon bëgg ñu bëri ci mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne hmm. mu ko waxee woon la ko defee xoolal moom en tant que moom nga xam ne fii la nekk ñun ñu nekk ba Sénégal mu suivre ñu si télé rek am yene boobu si ñun. Hmm. moo tax dama ko ne combat bii même boo ma joxul dara. sa société bi day nekk sponsor sama làmb ci hmm. loolu moo waral gis nga démb baay ma jox na xoyantaan blouson yi hmm. ñu sol ko mu nekk loo xam ne ñoom ñu ngi koy door gis yi première fois ñuy hmm. am fii biir Gambie ndax du ma ne nag sponsor duñu naan ñëw ci biir làmb Gambie xaw ma noonu nu mu demee ndax nekkuma fi waaye yàgg naa fi suivre ay làmb mosuma gis mbëri di bëri sponsor ñëw nekk seen ginnaaw bañ sol ko moom nag suñu papa suñu lépp la ñu ngi koy gën a woo di ko wane ko bés bi bés boo xam ne la bés bu àdduna bi di bàyyi xel la bis bu waa Sénégal di bàyyi xel mu nekk koo xam tamit ndax ku la defal lu baax am nga droit boo toogee gërëm ko wax ko société la yor BMG BMG dafay yëngu ci wàll real estate di jaay ay kër tabax boo amee sa kër tey boo ñëwee fii mu tabaxal la ko hmm. boo nekkee Europe mu tabaxal la ko ba pare nga ñëw jot say caabi loolu lay def otoog yooyu si loolu lay liggéey boo soxloon fii kër léegi boo demee mu jaay la kër fi nga bëgg tabaxal la ko ba mu pare mu yëkkati caabi yu jox la ñu ngi woo Gambie yi nekk si jasporaab bi yëpp nag ñu ñëw ànd ak BMJ ndax kuy ànd ak ay jeunes di leen di jàppale ku yor sa dërëm hmm. delloo ko si ñoom ndax seen rakk yi ñooy jugee koo fii di dem ci géej gi di leen jéem a fekk ci fi ngeen ne. Hmm. gis ngeen coono yu ciy am ak moor yu ciy am. Hmm. tey bu amee benn société bu nekk fii ci dëkk bi di dimbale jeunes yi moom bëggul lu làmb Gàmbi yokku moo tax tey képp ku mu gis ngay def ci làmb day ñëw jàppale la kooku jàppale leen ko maa ko wax ku bëgg kër gu baax demal si ñoom ku jënd sa kër feneen nag da ngay sa xaalis. Hmm, dégg ngeen kon nee na ku jënd këram feneen da ngay sànni sa xaalis mais diggante Baye Mandione Khoyantane fi mu toll nii yan kombaa ngay démarrer Sénégal. maa ngi ci benn combat boo xam ne nii bu taxawee képp koy amateur di nga ci gis sa bopp te di nga kontaan te sori naa ci lool. lu tax nga am fit. waaw ragal yab yàlla la. Djily euh, Fall. fit mënuñ ko ñàkk am. fit sax kenn du taxaw naan dama am fit waaye daal ragaluñu. non boo déggee ma ne lu tax nga am fit damay dégg maa ngi dégg ci combat yoo xamante ni yaa koy démarché ci suuf nga ma ne noo booy bi lan moo tax mu am fit. xam nga du ko àddur fit man li may wax rek déggoo li ma la xam nga nit tamit. Hmm. doo nax sa bopp. wax naa ko ci benn interview dama koy waxaat barki Seydina Mohamed boo ma tegaloon cinq cent millions tey ñu signé ay accords yu leer ñeme naa ko dugal ci làmb gis naa fi mbër yoo xam ne boo leen fayee cent cinquante millions askan wi di yooxu naan mëratawuñ cent millions billaahi wallahi watallaay man naa si ñoom kenn ku nekk deux cent cinquante millions man te balaa làmb ji quatre mois damay jot sama xaalis yan mbër la ku ci mel ni kan ak kan Modou Lo ñeme naa ko fay deux cent cinquante millions mu bëri kan Balla Gaye ñeme naa ko fay deux cent cinquante millions. mu bëre kan. ñoom ñaar ñu bëre. Balla Gaye Modou Lo. Modou Lo billaahi wallaahi watalaay tele laay waxee. àdduna hmm. baag may suivre. su ma ko defee balaa quatre mois ma génnee sama xaalis. ci ñoom ñaar Modou Lo Balla Gaye. par exemple li ma wétta wóor lamb ji bu ma si defee cinq cent millions. Hmm. balaa lamb ji dinaa teg un milliard wan ko askan wi ne ci lamb ji laa ko jëlee. mais daaw lañ bëre de. non du léegi. Hmm. comme damay wax dama gis boo leen fayee euh, cent millions day am ñuy kaas. Hmm. cent millions yi dafa bëri ci làmb ji Modou Lo ak Balla daaw lañ bëree. Hmm. fu ñu toll nii kenn ku nekk mun na dem bëree keneen. pot ñoom ñaar. laa la wax man nii nii nii ah su kenn ku nekk demee bëree ba ñu war a bëreewaat. ñeme naa leen a fay kenn ku nekk deux cent cinquante millions te dama si jot dama koy génne même nii nii bu ñu doon bëree bu leen làmb kii woon léegi nii ñoom ñaar ñu bëgg a bëree ma jox kenn ku nekk deux cent cinquante millions te bu làmb ji passé dinaa génne un milliard na ci làmb Balla Gaye Modou Lô laa ko am kon yow fi mu toll nii pare nga pour démarrer combat bu yaa ngi koy démarrer wala démarrer démarrer wu ma ko damay wax ci làmb yoruma xaalis boobu am nit moom dangay wax li fi nekk hmm. bul toog di wax bëgg bës hmm. naan damay tëgg combat diw ak diw yow ku la fëgg hmm. cinq millions mënul génn sa poche adduna lépp idée la. Hmm. man damay wax li ma man combat yi ma man maa ngi koy tëgg yàlla ak may suturaal ñu bëri dañ naan yoruma dërëm. Hmm. waaye maa ngi sant yàlla. Hmm. yoru lu ma benn mbër xaalis musuma bëreel benn mbër musuma bëreel pare nga xëy mar di topp ma dara amul. ñi ma bëreeg ñi ma bëreel yëpp lundi. bu ma xëyee wàccoon ak yow. même man bu ma ci amul dara damay wàccoog yow. kon du ma taxaw fii naan mun naa tëgg combat diw ak bëgg bës pour dem si journal yi wax te yow yoroo lu suukar màdd defuma loolu combat yi ma mën tëgg maa ngi koy tëgg di si sant yàlla ñi ma siy jàppale ñu ngi ma ciy jàppale di ma ci gunge fi koo gis mu dem dañ koo jàppale hmm. suñ état yi sax suñ Afrique làmp Sénégal lamp ya fay tàkkaka hmm. autoroute yi ñu am tali yi ñu ñoo ko defal suñu bopp hmm, ñu ñuy jàppale étranger du ñu ngi nii di ko fay. daa matagum APS boo seegee da ngay fay étranger ñoo jàppale. Hmm. man rusuma bañ ma ku ma jàppale xam nga lan moo bon. Hmm. bañ a góorgóorlu nekk ci yëf yi di jubadi. di hmm. tappale di sàcc di sonal say mbokk man loolu rek laa bañ. su ma ñëwoon ci yow leer na la bu ma lebee 10 millions nga lebal ma damay ñëw leb. bu yeboo ne promoteur bi amul xaalis day leb. man loolu concerné wu ma. man li ma concerné mooy góorgóor di wane sama bopp. ne am leen fit liggéey. fii lépp loo dugg dugg see fulla ak fayda même boo munul dem di nga waa yàlla boo xam ne gor la jàppale doomu aadama ko tax a jóg dina jóg jàppale la hmm. te ku comme si mel ni père baag jabootam gi hmm. maa ngi koy nuyu di ko ziar bu Sénégal yi meloon ni moom réew mi avancé na hmm. xoolul ne kii jeune la xoolul ne kii dafa am fit xoolul ne kii yoru day ñëw jàppale la ci li nga nekk maa ngi koy nuyu di nuyu doomam Mansour Ba di nuyu waa këram yëpp na Sénégalais yi di xool si ñu mel ni ñoom fii boo jëlu sa xaalis def ko fi nga ko war a def rek def ko feneen foo ko warul def ñun tey li ñu jël nii si dëkk bi lañ koy delloo mënoon nañu wax ne mënoon nañu dem nekk ci leneen tey bu ñu ñëwee di góor góor góorgóorlu ci làmb dafa am lu ñuy wane. Hmm. chaque jour tubaab bi dajee fii jël suñuy morom africain di leen di bagee ci ay bateau yëpp hmm. ñuy kaas pourtant tubaab dañuy jox suñu état yi xaalis. Hmm. ci loolu. ñu naan nañ tey jeunes dinañ pro financer jeunes yi ban jeune lañ fi financer fii. kenn jeune bu ci am loo jàpp da ngay jàpp ko waaye bu fekkee yow joxuñ la dara taxawuñ la jàppalewuñ la booy ñëw di góorgóorlu di liggéey sax ñoo lay jéem a fakkatal nan lay Afrique di doxee. Afrique ñun ñoo ko war a mën a liggéeyal suñu bopp. li ñuy dem di wuti si dëkk tubaab bi bu ñu toogee fii mun nañ ko fi def waaye ci kaw ñoom ñu jàppale ñu fii ku ñu jàppalewul doo dem suñ réew yi dañ ñuy jàppale kon ñoom nañu jël li ñu am ñu defar ko ci askan wi defar ko ci jeunesse bi man loolu mooy sama voix te loolu laay wax fu ma toog dama koy wax jeune Sénégal jeune Afrique am jom dañoo bëgg liggéey mm. waaye gisuñu leen taxaw man si fan sa club laa commencé woon mm. wax nga ko mm-hmm. amateur mm-hmm. tey cumbikaay am na benn Gambie fii mm. cumbikaay laa fi bu ñuy wax baabooy maa ko doon teel cumbikaay fii maa ko njëkk dugal ci làmb di ko teel cumbikaay di ko doxal a affaire cumbikaay hmm. maa ko yoroon foto hmm. Modou Lo maa ko njëkk dugal fii làmbu Gàmbi hmm. ci biir làmbu Gàmbi maa fi njëkk dugal photo Modou xamuñ ko boobu bëre naag les boobu maa ngi jeune la am benn rajo ndem si yàlla si yàlla ko yàlla yërëm moom rek moo fi doon def émission làmb fii alaaj caam ma dugg fa ne démb sama mbër mi nañ ko bàyyi xel futur champion lay doon moom laa doon faral ci làmb ñu ne ma kan ma ne ki dóor waa ji mu daanu ñu ne kan borom nopp yi coton bu yi ñoom ci loolu lañ ko xàmmee paa bi ne borom nopp yi bu yi ah ma ne ko waaw kooku la mu ne non kooku démb jël bi mu daan waaji ren gis naa waaji wër ko nomb sax munu ko da mu daan waaji ñu ne ñu nañ waat tey bu demee ba ay bis di jógee gàmbi di ñëw Sénégal di topp Modou Lo wala di jógee fii di dem topp Balla Gaye wala topp Ama Baldé wala keneen keneen fierté la def nga ci lu mucc ayib. waaw déggoo li ma la boobu xamuñ ko fii miinuñ ko wala boog bu fekkee am nañ ko fi xam sénégalais la ñiy dund fii làmb yëpp xamuñu ko 100 pour cent mm-hmm. ndax nit koo xam doo jël turam di ko dàkkantele ci borom nopp yi kotam yi mm-hmm. kon loolu sant yàlla man làmb dama ci yàgg sonn bëgg ko te yàlla tax fii képp ku ñëw ci làmb am na koo ku la indi ci làmb mm-hmm. waaye da ngay dem ba nekk benn niveau boo xam ne yéen ñëpp kenn ku ci nekk da ngay nekk ci li nga war a nekk ñu koy ñaanal li mu yor yàlla na ko jik di ñaanal mbëri man mbëri yëpp samay xarit la ñëpp laa am relation ndax produit làmb la tey mbër yi bu ñu doon wax produit làmb man la hmm. ndax ñoom ñëpp ku ci nekk bëgg nga ay supporters yu la topp hmm. supporter la sa supporter da lay topp di dégg coono bu nekk hmm. mbër amul njëriñ mbër yi baaxuñu mbër yi du yàlla ñu topp di tardel sa bopp kon bu ñu gisee jeune boo xam ne topp na mbër ba commencé si wane loo xam ne nii képp kuy mbër da ci war a kontaan mooy ñun liñ def nii wax yooyu man laa dégg ne wane ne topp mbër dafa baax topp mbër dafa am njëriñ nit même booy wër di lu bari sax jëm see réussir waxuma laa nga jóg topp loo xam ne lu baax la lu jaar yoon la ñi si nekk dañuy daan doole pour pour am lu ñu yóbbul seen waajur yi dañuy liggéey pour am lu ñu defal seen papa yi ndax mbër moo ci xool champion yóbbu nga sa yaay màgg tabaxal nga sa yaay kër jëndal nga sa papa oto yóbbu dimbale nga ay nit di defal jaami yàlla yi xoolal Balla Gaye boo demee këram di fay rang xoolal Modou Lo loolu xoolal Eumeu Sène waaw loolu baaxul li ñu am si dëkk bi lañ koy delloowaat mbër loo ko fay si réew mi la koy defaat sëriñ la ciy fay. Hmm. uude bi da ciy lekk. ah hmm. so so jaaykat yi suñu ndox société ndox yi nañ tudd du ma leen tudd sax publicité la hmm. ñoom sax dañ siy gagné mbëri saafara yëpp ñuy sangoo ndox la mbër mu ci am combat boo doon fay facture lu ndaw facture bi day yokk courant bi day yokk kon mbëri lépp lu ñu am ci dëkk bi lañ koy jox bu ñu waxee ñu bëgg a xalaat lamb lamb amul njëriñ lamb am na njëriñ lamb dafa am njëriñ ci réew mi lamb buy bëree ñaata combat yi dugal ci réew mi Sénégal hmm. kon moo tax jeunes yi topp mbëri yi ngeen topp baax na seeni doomu dëkk ngeen dimbale seeni doomu réew ngeen dimbale boole leen ci fulaak fayda rek lu yëngatu dara loolu laa leen wax. dégg ngeen nee na ngeen boole ci fulaak fayda góorgóorlu ma laaj la ñaari question mooy ki nga xamante ne Ama Baldé Modou Lo Sénégal gépp ñu ngi koy waxtaanee jot na ci yow wala jotul. waaw jot na ci axlu làmb jot na ci man hmm. ndax mbëree nawleem bot nag làmb comme li may wax rek sport boo xam ne la du nit ki tey force ñaar ñi dañuy bëree amul ci làmb bëri la mbër mu yóbbu la tribunal wala bëri la mbër boo bëri too dañ lay aj dootoo bëri amul ci làmb sport de soi la ñaari mbër ñooy bëggante promoteur bi bëgg ko combat bi am man su ma yoroon sama xaaj ne Modou Lo Ama Baldé laa bëgg hmm. ñaari mbëri bëggante wuñu est-ce que bi day am su benn mbër bi bëggee benn mbër bi bëggul est-ce que day am. bu àdduna bi yëpp bëggoon tam mbëri yi bëgguñu combat bi du am. du am kon affaire de choix la mbër mu nekk. yaay xool ki nga bëgg a bëre boo paree promoteur bi am sam pare askan wi bëgg ko làmb la. mais est-ce que du stratégie ndax Balla gay Modou Lo daan bëre euh, euh, nu mu tuddati Malick Niang bëre na fee ki nga xamante ne mooy Sa Thiès Malick daan Sa Thiès Modou Lo di zible Balla Gaye génn def benn sortie du ma bëre teeg Modou ndax dañoo daan sama raq muy gible gars yi ñëpp ñi nga xamante ne dañuy analyser làmb ne nañ ko loolu du motif mais tey Balla gay 2 jël na ki nga xamante ni mooy Modou Lo kon est-ce que du Modou Lo loolu muy wax Ama bal du ko bëgg a fàttaloo ba mu fàttalu mu jël ko. bokkul ñaari question yi bokkul. Hmm. Balla Gaye même bu waxee loolu loolu waxu làmb la tey bëree naa Modou Lo. Hmm. te bi mu ko daanaatee nii deux fois. Hmm. su ko neexoon da mën naa xam ne dutuma bëreeg moom. waaye da ne maa ba cinq fois. dañuy bëree. heure hmm. bi ñu làmb boole dañuy bëree. Hmm. Balla Gaye loolu la wax. Hmm. Modou Lo tamit dégg gu ma kat a ah, man. damay kenn waxuma keneen de. mosuma dégg mu ne du ma bëreeg Ama Baldé dootuma bëreeg moom. wala du ma bëreeg moom. mais day xamal ni jotagul. loo ko wax bu ko gars yi posé question ci loolu damay dégg ci li may dégg mu ne jotagul làmba ngi sunu kanam na xaar lu jot yomb. danañ daje maak moom kon kooku dàqul seen seen raison la koy teg. muy mbër Ama Baldé ko wax. bot pataas sama gënal pompiteer koo si toj amul avocat baax déggoo li ma lax même tey am gaal yëpp promoteur mënoon naa dem teg ci xaalis bu ko neexee mu ne ma ko loolu kenn mënu ci dara hmm. mbër mu nekk yaay xool ki nga bëgg a bëre nga bëre moom waaye li askan wi wax loolu laa wax lu axlu làmb wax loolu laa wax adduna bi yëpp nee nañ askan wi yëpp nee nañ combat te man mii toog nee naa combat la tey tey ñoom ñaar bu ñu bëggoon a bëree pourquoi pas man man ñeme naa ko tëgg hmm. comme tëgg ko Ama Baldé Modou Lô ñeme naa si def 400 millions te dama ciy génn. yóbbu ko fan Gambie wala a léegi Sénégal fu ñu ko bëree ma am ci xaalis boo bëggee dégg xam nga kenn du tëgg naan yaakaaruma ci billet yi. Mhm. waaye man li ma ciy liggéey ah. Mhm. balaa ñu wax waxu billet billet yi defar nañ ko jaay nañ tëggee sama xaalis dama koy dugal sama poos làmb fekk demul ba foofu rek doxul wala gars yi amaguñu idée làmb kon. ñett combat boo ban nga jàpp ni moment bii Modou Lô ñooñu la war a mën a bëreel moom ak Balla Gaye moom ak Ama Baldé xoolal moom ak Boy Niang loolu nag da nga koy lijjanti fexe ko am interview wala nga dem xooli estafam ku ci mel ni ñoom ber biram ñing hmm. nga posé leen question ba ne Modou Lo nan la war a mën a bërek en tout cas daal ñu ngi ko tudda fi yëpp làmb la hmm. mbër boo nekkee mbër rek képp kuy takk ngëm bu yàgg moom combat la ndax yaa obtenu làmb la gis nga man hmm. làmb tey <laughs> xeetu làmb bu nekk ba ma yàggu na xala la waaye xeetu làmb bu nekk seetaan naa ko kon ma wax cumbikaay laa doon téye ñun dañ doon jógee fii nii jàll paas tug topp àll bi làmb yooyu boo demee boo xasee yegg amul naan maa am tur amul naan fii laa dëkk amul naan xam nañ ma da ngay ñëw takk sa sër di dox ci biir làmb ji rek kenn xamul kenn. Hmm. léeg-léeg na ay mbër dajee fa xamante boo doxee ba dajeeg sa moroom mu ne la nii nga ne ko nii combat bi taxaw na da dem ci digg géew bi ngeen jàppante bëri ku daan sa moroom mu jeex. nga jugaat kenn ni ki sax mun ngaa toog ak moom bëreeg moom trois combats ci benn guddi gi. bëre yooyu dama ci wàlli ba sonn léeg-léeg sama dégg ñu ne làmbu émission la booy bëree sa yaay du ko mën a seetaan àll bi ngay dem amuñu courant amuñu gaz matt la ñuy taal ci biir làmb ji. Hmm. matt safara. mbëri di bëre seen yaa ngi taxaw seen papa yaa ngi taxaw seen magi di leen di tàcc te lu ko gën a doon risque mën nañ la daan safara si. bien wante jëli metti ñëpp di tàccu làmb foog la dañ dem nag bëgg ko génnee si. accès boobu mu nekkoon jii lii làmb dafa am lu ci nekk te tere yi sax waneeguñ ko. làmb moo bëri ay façon bëri lu doy waar. bëggoon nga jóg jël sa micro dugg ci àll bi topp yeneen làmb yi def ci documentaire. Mm. boo ñëwee di ko teg dañ naan la du làmb lii munul nekk. Mm. billaahi wallaahi watalaay kenn nit ay dëkk. Mm. amul visité fu nekk ku ne da ngay ñëw yor sa arme booy ñëw làmb lamb guddi yooyu. ñii ay jaasi yëpp la ñuy yor kenn nit mooy organiser làmb moo yor sécurité lamb ji. kenn nit. yaru cox lay yor yar bi xoolal day guddee fële ba fële. loolu la ñuy wax kii am na ñu koy waxee ci olof waabale. kooku moom may wax waabalekat bi kooku yar bi xoolal day taxaw ci biir di di ko def nii ci kaw. bu mbëri daanante yow nga daw dugg ci biir géew waa koo mën a toll taaga du ko dugg jaasi du ko dugg. yor na ay affaire yu baax yoo xam ne nii tey. ak koo mën a doon laa boo dugg ci biir làmb ji bu la ko tegee yow ci suuf si ngay xalangu mooy seere làmb ji amul police amul dara. Hmm. lii nekk fa ci mbër day cinquante mbër ay ponkal. Hmm. ku ci nekk nga yor sa béjjën bu doy waar. Hmm. fu ngeen dawee lag lag lag lag fecc ba kenn ñeme moromam nga ne nii ñu ne nii ñu ne combat la moom kenn mooy seere làmb ji fii suñu làmb ji léegi da ngay gis sans policier sans gendarmerie ñoo nekk ci làmb ji ji di am ay jafe-jafe. nañ dugal làmb ci cadre sport bu njëkk gaa yi dañ doon jóg ku dajeeg sa morom bëreeg moom def ko amour def ko fo làmb fa a jógee. di bëre. Hmm. bëre ba bët set doo am sax cinq mille francs waaye bëgg gi nga ko bëgg moo tax loolu di am. est-ce que gis nañ ren ci Jamaïcain mu tëgg li nga xamante ni mooy làmb simple. waaw làmb simple moom wax dëgg yàlla bëgg naa ko tëgg. Hmm. bu mu koy tëgg du ma ko tëggee dakaar du ma ko tëggee sax dëkk yi jege dakaar comme li ma la wax rek. Hmm. fi ma déparé woon ci làmb. làmb simple yooyu laay tëgg dinaa dem Saalum. si dëkk benn dëkk ci biir Saalum. teg fa lamb teg fa mis bu am solo bëree yooyu noonu ma leen wax nga xam ne hmm. yéen si di nekk Dakar ak yéen yi nekk Dakar gisaguma télé bu ko fa teg wala ku gis saaru bëree yooyu hmm. ngeen nga gis bëree yooyu bëri yoo xam ne ñaari mbëri dañuy bëree war a bëree nga yor gàllaaj laale ko sa morom laal ci yaramam mu taxaw nga jël sa bant wala dal dara laalal ko ko mu may la nga laalal ko ko hmm. moom tamit mu war ñëw ay defa war a def ay bagaasam nga nga may ko mu laalal la ko ba pare ngeen bëre saaru làmb yooyu dinaa dinaa ko tëgg organiser ko ngeen dem jël ko mooy làmb yi ma la wax rek amul courant amul dara safara la ñu taal ci biir géew bi nga gis kenn nit mooy seere làmb ji tëgg yi kenn nit mooy tëggal làmb yëpp hmm. mooy ñi nga jël ñu koy tëgg sembreng loo bëgg a tuus tuus gis nga waa des arènes dem gam bi sa dem moom la doon fecc hmm. galang boo bëgg ñu tëggal la ko nga ñëw fecc ak ñu nga àndal boo paree nga dem teg sa cumbikaay ñu ne làmb ji door na wéykat bi commencé ñu waabale xàll géew bi mbëri di dongale ci biir mbëri rek a fay nekk hmm. mbëri bu demee ba war a bëree fi mu toog pour jàppante fi ngay ñëw sumi daal yi gëri daal yi jël suuf suuf noonu boolante ko dem ci gannaaw ki muy bëreeg adversaire am nga fëgg ko ko loolu tegtal la ci làmb Dakar léegi damay gis gaay bu mbër bëree ñu jalu daal lam yi di ko watat pour génn ko ba si hmm. si làmb yooyu doo def loolu te loolu boo ko defoon ci seen Dakar yi làmb ji yàqu hmm. wala ñu door la ku loolu du dara ci làmb làmb dafa am ay aar yoo xam ne yëpp daf ci génn hmm. man bi may àndal benn mbër mi wax baaboy am benn garab garab gi ngañ ji lañ koy wax quoi. Hmm. dafa ñàng na hmm, ngañ ji non garawul sax garab boobu noonu sunguf boobu tey bu ma la ko laalaloon nii. Hmm. comme acide moo nekk sa yaram bi. da dootoo am jàmm comme yow dafa am lu lay màtt. sunguf boobu noonu ñun moom lañ laan yor kooku tey su demee ba wara a bëri ni dama koy jox. da koy yor nii ci ko def ko ci mbuus wala dara bu ngeen waree bëri nii moom lay téye kii la ko laal fu ñu la ko laalal yow sa loxo boobu moom pare na. to xam nga ay affaire yu. Jamaïcain mooy waxtaan ba léegi ñu ngi waxtaan mais Jamaïcain ñu ngi xamal ni waxtu bi ñu amoon jot la mais fi mu toll nii doyalu ci yow ndax ku la dégg nga waxtaan day xam ni vraiment kuy dund làmb la du promoteur kese waaye danga nga da nga mujjee ci promoteur waaye macha allah ku dégg xel mu sell mi ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom defal la gudd fan ak wér. ba lépp loo xamante ni séntu nga ko ci làmb yàlla defal la ci lu kawe sa njort ndax kat ndamam mooy ndamu Sénégal koo xamante ni tey bi muy commencé dara du dara ba tey macha allah dara du dara sax waaye mu ngi sant yàlla suñu borom ndax ku déplacé wu bàyyi ma njoon jëlee ko Sénégal indi ko ba gàmbi boole ko ki nga xamante ni mooy xoyantaan roi des arènes bu Gambie kooku macha allah am na loo xamante ne yàlla may na ko. Jamaïcain kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci tur Wassare Lamb. waaw wasaare làmb maa ngi leen di jaar di leen di gërëm di leen yow ji di nuyu Paate ak sa équipe bi yëpp. Hmm. di nuyu Baabu Mbay hmm. nga xam ne tamit moom doomu Séné Sénégal la. Hmm. doomu Gambien la mu ngi ba États-Unis nekk bitim réew. su ko neexoon mu ne nekkatuma Sénégal. ah di doomu Mauritanie moom doomu Afrique la. Hmm. su ko neexoon mooy nekkatuma Sénégal. Hmm. maa ngi Amérique maa ngi sant yàlla sama yoon newatul ci la waaye gis nga lu mu taxawal. Hmm. jël ay jeunes boole leen ci. dinañu tamit ATM. moom mu ngi foofu. toog soo sama waay la sama xarit la sama nitu démb la. yaa ngi dégg Seck mu ngi États-Unis tey. maa lay ziar bro. xoolal mu ngi États-Unis tamit di def lu doy waar mbëri yi nga xam ne ñu ngi États-Unis gëj nañ ci seen mbokk yi namm leen. mu ñëw di leen di jël di leen di wane. xam nga wasaare làmb bi mu ñëw daal ba léegi mu ngi def lu am solo kon baabu ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu sa équipe yëpp di wax ne ñàkk bokk ci course bi rek moo bon. Hmm. waaye bokk ci am na solo de. Hmm. te P2 ci loxol yàlla la nekk boo góorgóorlu la yàlla mën na laa def P te yéen xoolal ñëw ngeen na leen bàyyi na leen gars yi bàyyi xel li ma leen gis. Hmm. am ngeen jot. te am ngeen matériel. te ay sëñ yu am ambition ngeen. kon nag man moom maa ngi ci côté promoteur yi. di ci yëngu mbër yi ñooy wulli wante promoteurs yi seen biir ñooy wane waaye yéen sidi tamit bàyyi leen xel si bu si caaxaan dañ la wulli comme ni koy wulli di waxee maa ngi sant nag ñu may jàppale ndax bu ma toogee fii ba jógee fi sa santuma gorew ma maa ngi nuyu père ba sama papa di nuyu Mansour ba sama grand di nuyu njabootu per ba yëpp ñoom may ba ñoom kodde ñoom mbenn mama i daraame maa ngi ziar ñëpp di nuyu staffu jam production bi ñoom moor bu parcelle ñoom sëriñ daam ñëpp maa leen ziar nuyu sama gars yi ñoom Papa Gueye ñoom Gora ñëpp ma kenn ku lim Diom ñoom Souleymane ma kenn di ñëw Gambie fii di nuyu staffu jam production bu nekk Gambie fii. gils président bi laay commencé paate ñi ngi uus di nuyu Lamine Damfa. di ko ziar di nuyu sama grand Jibel Touré nga xam ne tey mbokk lañ ci cosaan. waa Balangar la sama yaay côté yooyu la jógee. tamit mu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax maa koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di nuyu dam fa di nuyu njool Dieng encore une fois. Hmm. borom BMG maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Matar Sène di jaar ak lu làmb yëpp di nuyu xoyantaan ak stafam yëpp sama papa nangu Cissé ma ko bàyyi maa koy jaar di jaar doomam oncle mu ngi Hollande maa ngi koy nuyu di nuyu Gambien yëpp di nayu nag borom hôtel bi Khadijatou saw bi hôtel Hmm. hôtel bu baax la bii taaru taaru na bu rafet rafet na takk ko moom si ñun la bokk. Hmm. doomu Sénégambien la ñëw jël lu mel nii investir ko fii. Hmm. ñu ngi koy nuyu di ko ziar. defu ko pour kenn wala dara daf ko defal pour gars yi xam ne kii africain la. africain war na mën a dem ba tubaab di jógee dëkkam ñëw di ko liggéey tam moom wane la loolu tubaab yaa fii ñëw di ko liggéeyal fii. jógee seen dëkk seen réew. ñëw fii toog fi di ko liggéeyal. lii rek mooy gëm sa bopp tax ki ko def jigéen la kon ñun tamit nañ gëm suñu bopp xam ne lépp lu ñu am nañ ko delloo siwaat suñu réew fii képp ku fi ñëw rek te kontaanoo ci ku moom lii rek yow des nga nekk borom idée quoi kon ñu ngi koy ziar di ko nuyu di leen nuyu yéen di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum wala boog doomatal di wax ne jili vive ci kaw sa kanam di nuyu site yi fi daje yëpp di nuyu bàyyi ma ñoon a xooyantaan ak ñëpp mm-hmm. di nuyu waa Gambie waa axlu làmb Gambie yëpp kontaan naa ci yéen mm-hmm. yéen waa wasaare nag mm-hmm. ngeen ko tuddee rek wasaare làmb léppay wasaare lan mooy wasaare wasaare wasaare tey boo ko doon tekki lan looy wax mooy lépp foo fépp fu làmb ne ñu wasaare ko moo tax moo tax ngeen départ Sénégal mm. ñëw Gambie dem États-Unis joge États-Unis mm. jógee Gambie fii mm. war a jël làmb wasaare ko moo tax baabu ma Mandione ak Xoyantaan Wuli ak Liiru Jaan dañuy wër àdduna bi wasaare. dinañ ci wax. jërë ngeen jëf dégg ngeen li nga xamante ni mooy jamaïcain macha allah ñu kontaan di am mbégte dalal leen kon mbokk yi dinañ duggaat ci hôtel bi xool ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ku ci mel ni Liiru Jaan ak ki nga xamante ni mooy Wuli mbokk yi ak wasaare làmb kon ba ci kanam incha allah.